nga décider nekk candidat. ah oui c'est une grande question jàpp naa ne euh, mën naa wax ne man fu ma toll léegi am naa expérience am naa maturité bi hmm. am naa taxawaay bi kilifteef bi tamit mi ngi ci man. te tey Sénégal mi ngi ci selebe yoon ñëpp jaaxle ñëpp tiit xale yu jël gaal yi dugg ci gaalu Barzak yi da koy wane su wëree Sénégal wër naa Sénégal wuro Sogi ba Oussouye Salémata ba Saint-Louis waxtaan ak samay mbokk yi Sénégal ah, man nag saa yu ma Sénégal soxla ma saa yu ma Sénégal soxlee rek damay taxaw xam nga man 93 maa ngi doon liggéey banque mondial di gagné ay dollars ah jóge ci école yu gën a mag ci France école polytechnique am sama doctorat en économie mais bu ñu ma woowee ne ma vraiment ñëwal jàppale ñu parce que suñu koom-koom yi am nañu ay problème mais hésité wu ma une seule fois ma bàyyi dollars yeeg yëpp ñu ne ma da ngaa dof di bàyyi banque mondiale di ñibbisi fii Sénégal. Mm. ma ñibbisi fii Sénégal jàppale suñu réew. ku la woo. Euh, waaw gouverneur banque centrale bi à l'époque Charles Konan Banny mm. moo doon gouverneur bi euh, voilà ma vraiment ñoo jàpp ci liggéey bi euh, effectivement ma ñoo jàpp ci liggéey bi d'accord ah, donc xam naa politique monétaire mm. xam naa nu muy tëddee ñun ay inflation yoo leen di wax ñii yëpp ñun ñoo ko calculer ok ñun ñoo ko teg ci table bi avant dafa amoon inflation <laughs> ñu doon wax indice consommation européenne hmm. ak indice consommation africaine moo fi amoon depuis les années soixante ans hmm. bi tubaab yu bàyyi ñun ñoo ñëw ñoo ko unifié man ak ñoom soogee jaari soo ak euh, may Diop sa moo doon suñu kilifa à hmm. l'époque on koy ñëw di ko ziar sax ndax euh, c'est un bon économiste praticien vraiment alors am naa expérience état ndax liggéey naa fu ñuy toggee les politiques publiques muy euh, primature liggéey naa ak ñeenti premier ministre ñeent Habib Thiam Mamadou lu Loum Moustapha Niass Mame Madior Boye yàlla dimbale na tamit ma dem Union africaine ci wetu président Konaré nekk directeur de cabinet am hmm. Afrique na muy dome nu muy doxee les enjeux euh, wër na àddina bi. d'accord nga jàpp ne loolu yëpp doy na pour nga bëgg a jiite Sénégal. waaw euh, parce que euh, am naa ci gis-gis bu takku. gis-gis boobu sax daanaka mën naa ne partagé nañ ko xam nga daanay dellu ginnaaw rek. ay 90 91 j'avais un peu plus de 30 ans. mu mm-hmm. doon maa ngi woon banque mondiale mais jotoon naa wër les pays d'Asie de l'Est. Mm-hmm. ce qu'on appelait en à l'époque le nouveaux pays industrialisés ma dem xool ñoom ñu tax ñoom ñu mel noonu parce que lu ñu jàngaloon en gros mooy euh, comme comme àdduna bi ni mu tëddee c'est mm-hmm. presque impossible. nga am dëkk bu ndaw amul doole mu mën a industrialiser. loolu laa jàng foofu tënk ko ci sama téere ma jëkk bind. muy les africains souveraineté l'Afrique d'accord donc di wax rek ne gis-gis boobu partagé nañ ko ci assises nationales yi liggéey naa ci d'accord loolu dinañ ci ñëw ci biir waxtaan bi donc c'est pour dire que euh, pare nañu hmm. pare nañu euh, coalition bu ñu tëgg MLD Tekki 2024 waxtaan nañ ci ku mel ni honorable Chérif Montey mooy sama directeur de campagne mooy suñu directeur de campagne njarbaatu hmm. Marcel Bassène la bu PDS Euh, donc euh, il est à bonne école il est à bonne école. d'accord alors Sénégal en parlant de gis-gis noo ko gisee tey fi mu toll ci wàllu démocratie parce que wax ji yëpp tey ça tourne autour de la démocratie am na ñuy wax ne dañ ci dellu ginnaaw dañ ci reculer wala droits humains barki démb la ñu doon natt ca euh, mbootaayu xeet ga Nations Unies dégg nañu suñu ministre de la justice la mu fa plaidé Aïssata Tall Sall avocate la boo xam ne aussi nangu nañu ay qualité mais à côté dégg nañu yu mel ni Human Rights Watch ak ñi nga xam ne ñooy défenseur des droits humains yi nekk ci Sénégal liñ ci wax yow Sénégal lu droits humains démocratie gis-gis nga ci am jàpp tëj geeg détenu coow loolu lëmbe réew mi waaw xam nga loolu moom laa doon wax rek mooy Sénégal ñu ngi ci célébé yoon ñëpp jaaxle nañu parce que état de droit ak justice dëgg-dëgg dellu na ginnaaw dellu na ginnaaw ah, lu ko waral nag mooy président Macky Sall man ci sama gis-gis bu pétrole bi génnee ak gaz bi fala la taxawee wax ñëpp dégg ko mais jàpp naa ne importance buñ ko waroon jox joxuñu ko dafa ne man je vais réduire l'opposition à sa plus simple expression mais loolu du wax bu ndaw c'est un président de la république moo koy wax xam na constitution bi président Macky Sall constitution bi nee na l'opposition est indispensable au bon fonctionnement de la démocratie donc su ko bëggee réduire à sa plus simple expression mooy daanaka démocratie bi ci boppam dama koy réduire à sa plus simple expression kon foofa la ko annoncé. kon la ko annoncé ñëpp dégg nañ ko souvent waa Benno Bokk Yaakaar su ma ñu ñëw waxu politique waxu politique président de la république ak nu mu amee doole Sénégal mais wane na ko ku ne A ñu tëj la kaso ku ne B police woolo alors loolu la ñu dund toutes ces dernières années yëf yi nag dem ba déraper avec les manifestations de 2021 ak 2023 situation boobu il faut ñu génn ci il faut que Sénégal avancé ci mbiru état de droit ñu génn ci situation yooyu def réforme institutionnelle yu ñu soxla euh, bu ci gën a fës mooy président de la république mooy buur muy dumi su ko neexee sax ne moom kan foore la kenn du noyyi ça peut pas continuer comme ça ça ne peut pas parce que attanuñu loo fii ci Sénégal donc président bi ci boppam dañu war a encadrer ay pouvoir am wàññi ko de telle sorte que effectivement mënta taxaw suba ne man je vais réduire demain la presse à sa plus simple expression le lendemain matin suñ ko bàyyee sax dina ne je vais réduire xawma la ak lan à sa plus expression mm. loolu dañu war a nekk dans un état au Sénégal une république boo xam ne loolu warut a mën a am mm. tey bu ñu la ne woon nga jox ñu ay màndarga ci luy firndeel ne Sénégal dafa dellu ginnaaw ci wàllu droits humains ak wàllu démocratie lan nga ñuy joxoñ ah wàllu démocratie xam nga démocratie mi ngi commencé ci liberté de presse démocratie liberté de manifestation bon fii bon maanaam euh, manifestation c'est presque impossible euh, depuis lors vraiment ku bëgg manifeste manifester ñu bañ ku manifeste ñu téye tëj la euh, voilà loolu gis nañ ko plus d'une fois temps yi ba léegi pratiquement amatul manifestation alors euh, euh, ci mbirum démocratie tamit euh, gis nga aujourd'hui Sénégal na mu mel en matière même assemblée nationale hmm. assemblée nationale franchement parce que foofu normalement suñuy wax démocratie fa la war a dundee moo hmm. ay débat sérieux yoo xam ne mën nañ ci waxtaan parce que député yi ñoom ñooy ndaw askan wi ñu xam bu nekk yow lan xalaat fa nga bëggee jëmee Sénégal ngeen mën ci discuter. kon assemblée nationale reflété wul démocratie. non au contraire dafa ko suufeel. lu fa am nga fa dafa euh, suufeel débat public yu ñu fa war a am amuñu ko. Euh, dañuy xuloo dañuy saagante ay ŋaayoo yooyu nga fay dégg. loolu tam est-ce que nekkul ci yéen député yi. ñu leen tànnee ku leen tànn <laughs> ku leen tànn ici c'est le président de la République may tànn waa Benno Bokk Yaakaar voilà moom. am na sax ñu doon wax ne ñoom